initiative bu bu rafet bi euh, te rëy lool te am solo ñu jël ko te foog naa ne bii du yoon bu du yoon bu njëkk bi. Ah. Euh, ndax ñoom bu fekkee ne ñoom boole seen bopp des agents yu liggéey ci structure sanitaire yi nekk ci dëkk bi nekkat dañuy jël lenn ci suñu temps lu bokkut li ñuy liggéey di ko def addiya di organiser ay manifestations di jàppale ci wàllu wér-gu-yaram loolu lu am solo la. kon day mbooloo moo xam ne mbooloo mu mat a jàppale la mbooloo mat a accompagner la mbooloo mat a encouragé la kon ñu ngi leen di encouragé di leen félicité ci euh, liggéey bi nga xamante ne bi yéen a ngi fii. li ngeen tànn aussi di ci liggéey di mbir am solo ndax kenn ku ne xam na ne nit ñi lu ci ëpp seen loxo jotu seen ginnaaw kon bu ngeen jógee di leen jàppale ñëw ba ci seen wet ak proximité bi fekk leen fi nga xam ne fi la ñu dëkk di leen faj gratuitement. ngir yàlla ak jëmmi Serigne Touba loolu foog naa ne mbir la moo xam ne ñëpp ñoo ci war a taxaw ñëpp ñoo ci war a jàpp ndax ñëpp ngeen koy defal ndax damay faral di wax ne dëkk bi dëkkub Serigne Touba la ñi nga xam ne ñëw nañ fi ñëpp dañoo gàddaay ñoo fekk sëñ bi kon kenn ku nekk si ñu da cee war a def loxoom ba ba yaakaar ji ñu am ba tax ñu gental seeni sanc maam dikk fii fekk suñu yaakaar yooyu bu ñu dikkee fekk ko fi te foog naa ko amul wér yaram foog naa ne euh, doo mën a doo mën a liggéey lu bare bari doo ko mën ci àdduna gàllankoor lu bari da koy da nga koy amee kon lii mbir mu baax na moo xamante ni ku fi ñëw ku ne vraiment sa xol dina ci dina ci sedd guy moo itam bi ñu ñëwee seet si ba mën leen kat danaa fa dikk tey encore mu ñëwaat ngir encourager leen ngir gis li ñuy liggéey lan la ngir aussi xam ne manqué seen wet di leen wax naa leen ko aussi léegi bu soobee yàlla kaay yi nga xam ne gis nañ ko fi ñu ñaan yàlla mu mu bañ a bari aussi loola dinañu xool prise charge bi naka lañ ci mën a defee aussi suñu suñu loxo ngir jàppale gi di wéy euh, parce que foog naa ne ku jël hôpital bu mat juróom-ñaari milliards tabax ko may ko population totale bi suñu tubaab yi def ko loolu foog naa ne yoon ni kon yàgg nañ ko wane euh, te te te loolu mooy li war a am ndax lépp loo xam ne pas-pas moo koy euh, moo koy def lépp loo xam ne volonté la lépp loo xam ne maanaam don de soi laaj nit ki def ko ngir jëm yàlla rek loolu foog naa taalibi Sëriñ Tuubaa kenn mënu ko ci moo tax ku kuñ ci ku boobu kuñ ci kuñ ci dàqee rek soo moytuwut dañ la raw ndax nit ñi bu kilifa yi nekkat na ngeen mayee deret loolu dañ koy jàppee ndigal loo xam ne farata lay nekk ci ñoom ñu war a jóg xettali seeni bokki jullit seeni bokk yoo xam ne ñoo bokk bokk réew mi ndax boo mayee deret mën nañ ko jox kenn ku nekk kon loolu aussi day wane rek ne taxawaay bi nga xam ne Touba am na ko ci biir réew mi loolu nag c'est heureux bi nga xamante ne bii reconnaître nañ ko tey jii wax ko ndax bari na domaine yu bari yoo xam ne tubaa avant-gardiste ci mais malheureusement li ñu koy feeñal da du da bari loolu aussi dëppoo ak li nga xam ne toujours dama koy wax moo di ni nga xam ne mooy kilifa diine yi seen capacité de mobilisation mi nga xam ne am nañu ko dañ ko war a gën a jëfandikoo ci loo xam ne dafay suqali réew mi ci loo xam ne dafay di des modèles yoo xam ne nit ñi dañuy jóg def ngir yàlla jël seenu ñax ñaqal ko réew mi pour que suñu réew gën a jëm ci gën a jëm kanam. tey jigéen ñi la ñu jagleeloon benn journée dépistage cancer du col de l'utérus waaw jagleel loon ko soxna Mame Bousso Wilaya ndax moom femme de développement la boo xam ne ñëpp ko xam ci Touba yor jigéen ñu bëri ci gannaawam moo taxoon ñu ne leen convoqué pour seet leen fi dafa leen dépistage ci saytu seen wér gu yaram rek saytu wér gu yaramu jigéen ñi parce que loolu dafa am solo feebar boo xam ne dafa bëri ci jigéen ñi te comme buy ñëw day yoot du yëglu mën nga ko yor lu yàgg doo ci xam dara moo tax ñu wax jigéen ñi nañu ñëw ñu xoolal leen ba xam ñi am nañu dara loo xam ne dafa jëm ci côté boobu wala waaw ah, loolu taxoon ñu convoqué leen waa dépisté waa ñi ngi xool am na ñoo xam ne dara jotu leen waaye mais am na ñoo xam ne gis nañ si tuuti rek loo xam ne loo lu jara saytuwaat la xool ba xam jëm na ci yoon boobu wala su ko defee ñu xam na lañ leen di def pour orienter leen pour seen prise en charge façon la boo xam ne daf ñuy permettre ñu nekk en contact avec jigéen ñi parce que dépistage yombul gaawul bu ñu nekkee bu ñu leen woowee nii day tax ñu mën a recruter mën a xool mën a dépister si biir ñooñ ñi nga xam ne ñi ngi dox di wax seen soxla defe ne feebaruñu alors que am na lu leen di yoot ci suuf te yeguñu ko loolu daal moo taxoon ñu convoqué leen santé ak sociale defoon nañ fi conférence distribué fa ay carnet de mutuelle yu bëri mutualisation de femmes suñu objectif sax mutualiser cent femmes par an la léegi commencé woon nañ ko ci conférence bi ñu ngi ciy continuer ba tey am na 30 carnet yoo xam ne war nañ ko distribué yaat bu fekk ay fan euh, ba may nañ ñu aussi ay euh, ay bourse sociale yoo xam ne ñu ngi koy ñu agseegul mais dig nañ ñu ko bu ñëwee ñu dégg séddale ko ñi nga xam ne ñooy néew gi doole gi jëm def aussi dañu soxla ñu leen di dimbale si seen mbiru wér-gu-yaram ndaxte du ñu jóg rek dem hôpital dañuy yar yenn saa yi seen feebar parce que amuñu moyens yu demee hôpital bu ñu leen fekk see sur place seet leen saytu leen bu jëlee lu yomb la ñu may leen ay garab ñu dem bu dee dafa xaw a compliqué tuuti ñu orienté leen ci hôpital bi ñun mbirum wér yaram lañuy liggéey si la ñu nit ñëpp xame dañu yaakaar ni dañu war a jàppale askan bi parce que nit boo ko bëggee soxlaa ëllëg te def loo ci moom lu tax ëllëg boo ko woowee mu mën la wuy si loolu du sotti moo tax ñu ni population bi am na lu ñu soxla nañu jëm ci ñoom dimbali leen ba pare ba ëllëg bu fekkee ne soxla lañ leen ñu mën a ñëwaat ci ñun. pour prendre part à une journée de dépistage. euh, des pathologies cervico-vaginales, qui sont des pathologies assez fréquentes. Au fait, euh, moi je remercie beaucoup cette organisation sur le plan sanitaire parce que euh, ce que j'ai vu ici, le, le, nombre de patientes que j'ai vues ici, je n'ai pas l'habitude de les voir à l'hôpital. que c'est aussi une occasion de rencontrer une grande partie de la population qui est souvent innocente, qui ne sait pas utiliser le système de santé, Et quand on les rencontre, je peux dire à domicile, c'est une bonne occasion pour les dépister, pas seulement les cancers du col. Moi, je vais plus loin. Parce qu'il y a les cancers, le cancer du col, et il y a d'autres pathologies cervico-vaginales qui ne sont pas cancers, mais qui, les posent souvent des ennuis. Et qu'on sache aussi que le cancer du col ne commence pas par le cancer. Il commence toujours par une pathologie bénigne et qui, non mal surveillée, et peut aller jusqu'au cancer du col. Et donc je pense que c'est une bonne opportunité euh, non seulement de rencontrer beaucoup de patientes qui sont innocentes et qui, cette rencontre va nous permettre de faire euh, ces prélèvements, comme elle a dit, les accompagner jusqu'au bout, éviter que ces cancers du col, le nom fait peur, le nom fait très peur, ces cancers du col qu'on trouve souvent à des stades tardifs devant lesquels on ne peut rien, on veut que ça cesse. Parce que le cancer ne commence pas par le cancer, le cancer commence toujours par une pathologie qu'on doit découvrir et qui est traitable, bien sûr.